asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وفتحطاه وخاب يا رزاق يا ملكي بالتوحيد بالله مصحف معاه يتأسل عاجلا بالبشر محمد حتى لكم إليه كنا يسوع جواني توعى ورحمة مكانيات الوراه وتريد لي سمع كنا كسماء غيري يا مساكين أجيب سيد من حسن لي محمد يا الله من جميع المسلمين اللهم صل على محمد آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مودو عبد الله أحمد daal laaj laaj bu am solo maanaam maanaam ni ñuy waajalee waajtaay ku fi bàyyi ko ba ba denc ko ak lañ ca war a def lépp maanaam ñu denc ko ba ba ba ñëw ba ñëw ci kër ga laaj la bu am solo ñu ñu ñu ñu ko fàttali ko ak it xam ak it xam lu ci biir waaw man ñi day wax nañ ne daanañ wax ne bu nit nekkee ci waajtaay ba nga xam ne ba nga xam ne ragal nañ ci moom nga dootu jóg am na ay sax sax yuñ ci laale am tënk bu ko tënk bu ko tënk bu ne damay jiw jiwu ci ñu toll xam naa waaw waaw da def ay sarax ngir ngir ñu woyofal ko woyofal ko sukkaat mooy koo xam ne wéri digg daa yegg loolu xam ne saaga nga xam ne sukkaat yàlla tere am am ay fan di di sukkaat loolu moom it wut ab wuti sax rek wuti waaw wuti sarax rek ay lu togg wala wala nakk wala dara ñu jox ko mujj sax daana gis ñu jàng kaamil bu ñu kii demee ba ba wér dëgg so ñàkk ci yaakaar tam mel ne waajtaay wu yàgg na yàlla jàng kaamil booloo jàng kaamil nekk naa ko ca ko si mën boy sise waaw koo xam ne moom ñu nekkee ka loolu sax ba jàng kaamil boobu jugaat na wér juraat ba fi ñu toll nii digg ma ak gën a adduna loolu ko ko kon moom ak ñoom daan ko def kooku nag bañ koy defal kaamil ba yaakaar naa man ni bokk naa ca waaye boobu ak teewlu ga teewlu ga daal wér na sama bokk yàlla wóoruma waaye man toogoon naa daal ci suñu wet muy romb nii ñoo toog yaakaar naa jàng naa ci dara waaye jotaay ba damaa gis mu raglu lool wax nañ ko kon kon teewlu ga kon wér na ndax waaja dañoo mujjoon jàq ci moom loolu yaakaar naa duutu jóg bu loolu la amee ginnaaw loola waa ji bu demee ba xam ne maga ji ci ci waajtaay wax ne ne kat bu dee jigéen moo nekk ci moo fa nekk ci néew ba di ko ragal ne fi nekk ñëpp di ko ragal nañ laabal waa ji laabal ko sooy bañ koo jegee ñoo ñoo koy ragal yi laab awraam bañ a feeñ bu dee jigéen a nga fa ñoom it seen awra bañ a feeñ ndax malaaka yi yërmande yi nga xam ne ñoo koy jël si malaaka yooyu du ñu gis awra la la ñuy wax te loolu mën naa mën naa yëngu sëñ sooy bu moomee radiyallaahu anhu bi am na seen soxna ci soxna yi ku nekkoon ku nekkoon ci ci waajtaay ñu ñu ñu ñu wax ko atay gudd ñu wax ko mu daal di ne nañu xool néew ba lu fay am nataal nañ ko génne gaa yi dem génne nataal ya nekkoon ci néew ba waaye rek dëggut mu laajaat ne ne nañu xool ba xam am nataal mag seen dit par exemple ndawul ñaareel yaakaar naa wala ñetteel moom bu ñu génnee soxna si si daal ne nañ ko wàcc ci suuf ñu war karal bi wàcc ci suuf wàccee yan am na piis boo xam ne boobu jamonoy jamonoy élection bu masa am ba ci saa boobu jamonoy Abdou Diouf piis boo xamante ne nataalu Abdou Diouf a jane noonu noonu xam ne jigéen ñi boobu ñoo ñoo war a sul ci ci métin yi ndégate pi ëpp piis nga ci boo xamante ne nataalu Diouf yaay di jëndi piis bi génne ko buñ ko génnee rek ba daw salaata àgg soxna si daal daal dinay wàcc waaw loola lool lool loola sax na ci ci xadis insina juda ak silaam bas naa ñëw ci tuwa silaam ñëw ci buntu nekk soxna Aïcha daal di taxaw nuyoo def ko ak silaam ni ko am kat du ñu dugg ci néeg boo xam ne am na croix wala nasaal wala doo ko tànn loolu sax sax na ci ci xadis waaw kon kon kon loolu suñ suñ saa bu bu doon gaal kon loolu rek la. la la la ca tëj la kon la ca to- to- topp kon bu bu dee waajtaay wa kii na ab làmp bu bu bu buñ ko mënee fay mu xawal ndëm saa waay nee na dafa am góor goo xam ne da koo seeti ti ti woon nee na waajtaay wa yegg lool ñaan naa nee na nee na nee na njawut gépp ñu ngi ko ñu ngi ko ñëw ti yéew ko nee na ba ma génnee sama xel daal toqal ci ma ne ah daa mel ni kat su- su- suutura si si ginnaaw nit ki buñ dee wa- rocc ci roo gi day am ci ñoo xamante ne dañuy yëngu yëngu ba te loolu suñu borom su su su daalee waaj bë- bëggul njaboot ko gis ko ma dëkku ni leen fay lamp ba ba bañ ko fayee ba ba ma génnee la lañ ma ma dëkku ne ma wàcc na waaw waaw loolu loolu it kon it su su su su su soosu soosu ko it bo- bokk ci li li bokk ci li li nga xam ne. ma maanaam da- dana weexal mbir yi suratu yaasin nag suratu raxant ci bopp ba suratu raxant suratu sama bàyyi liñ daa wax ne ne keroog ñu ko ci waajtaay nee na nee na wax na ko bu yàgg li ko waajtaay mu woo ko joxañ ko mu mu toog ci yootu boppam daal koy joxañ nee na ma xam ne ne kon loolu lay wax daal koy jàngal suratu raxant waaw kon kon kon suratu raxant waaye nag am na ci geneen waajtaay boo xam ne nii balaa booba ndax su su léeg-léeg nit fàtte ko fàtte fàtte wàccaay yi fàtte ak mujjum ne ci njëlbeen nag ngi wala digg ba fàtte mujj ko léeg-léeg danaa gis ne man li gën a li li gën a mat a def moom su jamono ji mooy moom mooy fàttaliku mujj gi mooy def say dog ña- ñaan yàlla ba jombul suñu doom wanne la nangu naa ñaan rek ci ci ne musul la ci sukuraat rek ak ak xeeti waxtaay yu yu yeex yooyu bu loola noppee bu bu bu bu ñu bu ñu jógee ci bu bu ñu jógee ci loolu bu ñu jógee ci ci wàcc na wàcc na wàcc na lé léegi gi nag ñu ñu war koo waajal waaj waajtaay bi bi moom xubbi ko nee na mu ngeen ko xubbi se seetal ko noonu rek ci ndox ndox moomu jëkk daawal ko noonu waaw ñu ko xubbee nag ba noppi nag war war ko loolu ndànk fa fa mu ko defee rek lañ ko baaxoo defee bu kee rek dal koy yóbbu nag yóbbu ko ko ko nag ci sang fi ñu koy sangee sang bi amut amut amutu melo nan la ko mu tawa waxe xanaa xanaa rek na na tóol ci benn ci ci ca ndox yi am xob bi jéem wala neppee ma jël parfum def def ko ci def ko ci cëri jàppam yi waaw kon kon kon am na lu am na lu am solo loo xam ne it nga fàtte mooy na ne ko mag nga laaj dafa ñoom utul ko mbu tuba yëg mbubb ak bu dee góor bu dee jigéen gis kumba waaw kaalaak nangam yooyu yooyu laay ko def booba bu nga defee mu ñëw bu nga du bu ko dee sutaal na ci barab ba doo gis waaw dara dara du yar la bi ci ay cëram tool ni danga gis bu fekkee naa kilifa goo xam ne bañ koy denc pégal yi léegi ni mu ni mu woyofe waaye bu jëmm ja xam naa pégal bi daanaka da ngay xaw nga seen jëmm ja loolu loolu loolu it xam naa it ñàkk seet ñàkk seetlu gi jàkk santal gi ni ji bare gi waaw xam naa ko kon lo- loola bu bu buñ defee loola la la nag ba ba yóbbu ko ñu buñ ko dee yóbbu ma mag ñi xëy du faw mi joojee nga xam ne moom lañ moom lañ ko ko daa yóbbu woon ñi nga xam ne ñoo ñoo ko ko yóbbu ñu ñu jàpp ci waaw ñi nga xam ne ñu ñoo jàpp daal di di ko tari waaye waaye yëpp bu ñu de- bu ñu demee jàng yaasin ca bopp ba jàng mu lu ca tànk ya loole loole it waaye waaye mu amoon lu ñu fa tewaat lu- loo xam ne mel na ne xam naa daal du du aada joo xam ne gars yi bari na ko xew mooy toog ci bopp ba denc ba noppi daal di ne waa ji fàttalikul ne yaa ngi génn ci adduna ci ashadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rasul sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko ca ku ñu denc ba noppi mu daal di ne ñaanal leen ko tas bi ñaan leen yàlla dëgëral ko may ko dal ak ñeeme ba mën a tontonte malaaka yi ndax ndax léegi kat tool ñu ngi koy laaj waaw daanaka nu ngeen di asalaam daana wax ñu ngi xel loo xam ne di di wax loolu ba baati seede yi ñu ñu di ko fàttali waa ji waaw loo loolu kon lu lu lu ama am solo la loo xamante ne wat nañ ko ak it bu noppee fukki junni fukki fu fukk fukk fukki junni bisimilah rahim yi waa daal mosu dem foofu fokk nañ ko lool moom si bu mañ ma wax nooree nii fukki junni ak ñaar yi basmala muy fidaw ñun fi raxas it fidaw la waaye fukki junni ak ñaar yi mu ci mën a boole foofu jël kursi def ko juróom-ñaar fukki ju- junni yi nag moom yu laa ilaha illallah loolu moom moom bu ñu demee ci kër ga mën nañ koo def bu ñu jàng xel ba noppi wala yooyu ñu ñu ñu ñu jàll di jël ay kurus juróom-ñaar fukki junni yi fi deewu la loolu loolu loolu moom lu dëgg dëgg la Ibn Arabi Xaatimi wax na ko surtout waaye saxal na ko ñu ñu def loola bu ñu defee nàkk yi nga xam ne moom lañ koy defal ñu ne neuf cent quatre-vingt-dix-huit la lay doon nàkk ya benn bu ne ñu jàng ci lalaas ñi ki koy tànk jàng ci lalaas xam naa kon su boobaa kon ñu wut ñaari ndox ndox mu am saabu ndox mu am ndox mu am saabu ñu raxas ci ba mu set wécc leer nga di ko soog koo dànk xanaa ne ñooñu it xam sart yi ñu ñu ñu ñu jàngal ko 1998 sama baay bi mu làq ko ma muy ubbi barkeelu yi fekk ci kii boobu moom defoon na ko def xam nga 1998 la la la la la la lay doon loolu aada yi mag ñi waaw waaw bu ñu no bu ñu noppee nag ñu ñu ñu ko doon jëli ñu ko doon yóbbu bu ñu bu ñu ñibbisee ñu ñu ñu waajal leen ndox mu sedd boisson lay doon wala wala njar wala si wala lu mën a doon te bañ a tàngal yu yu tàng yi suñu xarim jaxate nee na si nee nee na suñu am suñu jaxate kenn ci kilifa yi dafa làqu ñu yóbbu ko ba ba ñu ñëw suñu am suñu daal di jëndul leen spark la boisson spark sedd daal di ne nañ ko daal di ne ku jógee adduna jëm àllaaxira li mu jëkk a soxla mooy lu lu lu sedd lu lu féex bu ñu ñu ko doon yóbbu nag bu ñu bu ñu joxee sedd yooyu ñu naan ko day soppali ko ci ci moom ak am féex kon café yi ñu tàngal ci ci dëj yi loola ñàkk xam la ñàkk xam la quatre-vingts ans ba nga mën ci ci aw tatam lay gis quatre-vingts rek nag quatre-vingts ak quatre-vingt-un ndaw xanaa ci njëriñ ci la fa tàmbalee xew ci dëgg yi booba xam naa xam ne bu dara xewee ñu ñu ñu dikk bokk ci liggéey ba xam naa tàng kafe ga ñu ko ñu tàngal ci dayre yi ñu ko ko indi ci loolu waaye loolu kon si xaal jaxate nee na ma si am situ mu wax loolu waaw kon it moom it kon mat naa mat mat naa mat naa moytu kon loolu waaw ndax ginnaaw nu xamuñu dara dañuy toxal ci ci li nga xam rek bebo ñu ñu jéem ca ba keroog ñu ñuy xam leneen loo xam ne mën naa yokku ca la ñi xam waaw loolu loolu daal kon kon ci ci tënk bu dee koo xam ne daal du bàyyi doom am ñu daan wax ñeent fukki fan yi guddi yëpp nañ fexe ba ba doom ja du du jooy ndax roog yi dana day ñëw di di di xool si di di diglu si dëkkandoo yi di diglu si jaboot gi waaw kay loolu it daanañ ko wax mag ñi daanañ ko bàyyoo dañu fexe bari jooy ca waxtu tukki yooya waaw loolu mu mu ay ay fi baax a baax barkeel yi moom yaa waxoon naa ko ca ca sëñ Basiru ja waxoon naa ko ci waajtaay waajtaay waajtaay kon day sëñ wax di xaat kon yoo kon salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh